waaw ne euh, nu dajale fii tey mooy euh, ñu ñëw fii tey pour dimbalee li nga xamante ne mooy politique président Macky Sall ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu ndimbal transport bi ndax ku ne transport tey transport doxatul transport bi arrêté na moo tax président jël sa alal ju takku ne dimbaleen ko chauffeur yi président nag bu defee des mel noonu ñun ñi nga xamante ne ñoo yor collectivités locales yi di maire dëkk yi moo tax tey ñu ñëw fii loolu président dem ñu feelu ko feelu bi mooy lan mooy ñun sama salaire assemblée dama koo jël muy 1 million 300 ma ne ko jox garu ceer yi jakarta yi photographe yi nga xam man mënatu noonu liggéey ak ñi nga xamante moy moy clando yi pour que li nga xam moy ñoy transporter ñi nga xamante ñoy ñooy indi cas communautaire ñom ñu arrêté ko pour le moment lool motax tay ñu ñew ak suñu jàppale ak suñu ndimbal li nga xam président commencé nako ñu gungé ko ci accompagner ko ci tay lool motax tay ñu teew fi tay wa séddale bi comme ni ma ko wax sank rek dañu ne garu ceer bi ñu nak ni dinañ leen jox 300000 garas clando bi nga xam moy Moussa Faye ñu 300000 garage Pape Diouf ñu jox leen trois cent mille photographe ñu jox leen deux cent mille Jakarta man ñu jox leen li nga xam ne mooy pour nii pour que bu ëllëgee cas communautaire yi nga xam ne ñu ngi koy transporter dem ñoom ñu bàyyi ko xel ñu ñu ñu dimbale président dimbale nga xamante transport clando bi dana mën a jeex. defuma ko au nom de l'assemblée mais dama koo def tey li nga xamante moom maa na ci commune bi commune bi Ndiakhou laa nekk doon fi maire. kon li may def tey maa ngi koy def en tant que maire en tant que maire nag su ma su ma ñëwee pour accompagner sama dëkk loolu defe naa am naa ci droit yeneen député yi def nañu seen participation yi am solo ci li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu euh, dimbale président accompagner ko wala seen gox goxaat ñu ngi fay def ay ndimbal mais man li ma concerné fi mooy maa ngi def ndimbal sama dëkk en tant que maire ci loolu ci incha allah rabbi ci lañ sama salaire la waaw sama salaire lañ ko defee parce que aussi boo gisee ñu jël salaire bi def ko mooy recette marché bi recette marché yi. daanu na réseau commune yi daanu na ci loolu tam dama cee profité ne état bi na accompagner li nga xam ne mooy commune yëpp ci àddina bi pour dimbale leen ba nu mën a fay seen salaire man leen jàppale man leen accompagner. waaw loolu moo tax tey ñu waa gaaru ceer yi parce que cas communautaire yi chauffeurs yi yooyu ñi nga xam ne ñooy def clan transport clandestine bi ñoom ñoo ko fi indi en général parce que ñooy jëlee nit dëkk en dëkk ñooñu ñëw wàllu ko ñeneen moo tax tey ñu ñëw fi leen sensibiliser leen wan leen ne président dana leen dimbale ñu dara leen accompagner ngeen muñ xaar ba nga xamante ne nii cas yi nga banyak ne communautaire yi amati te li indi transport yi ngeen seet ñi ngeen di yeb ñan biir dëkk bi sax man ngeen fi yeb nit mais comme dañ leen tere loolu nag nee leen bu leen demati bu leen yebati bu leen demati kon ñun dinañ def geste nee leen bu leen demati jox leen dara teg ko seen loxo loolu moo tax tey ñu doon marché hebdomadaire yi boo ko indee loolu xalaat ndax lu tax mooy Dakar a ngi nii ñu tëj ko parce que lu tax ñu Dakar mooy pour éviter feebar bi law tasaaroo pour éviter feebar bi law loolu nag dafa am solo

Euh, sensible na ci seen ci seen boor parce que gis na ni seen liggéey xëy na demeetul noonu ba tax li mu amas néew mu ñëw bëgg ko parce que yéen a ko ak ñoom kon donc ci kaw loolu ñu ngi ko ci gërëm di ko di ko sant waaye nag du tere mu profité ci occasion bi wax ni état Sénégal le transport interurbain bi nga xamante ne dañ leen ne yéen taxaw leen bu leen demati fen taxaw leen dootu leen liggéey leen demati fenn bu demee ba am ndimbal lu muy jël di ko joxe par exemple ñooñu war naa bàyyi ci ñoom xel bu baax a baax a baax. parce que dama dégg ci ministre bi mu wax ni par exemple interurbain 400 millions la leen di jox AFTU dina am 500 millions hein Dakar Dem Dikk dina am 650 millions kon donc man je trouve que ni séddale bobu du séddale boo xamante ni xëy bu bu bu bu bu mandu la bu bu mandu la parce que transport interurbain mo gëna important fuuf transport urbain bu dé ci walu ëpp ay nit ñoko ëpp ay nit. parce que Sénégal yëpp la ñaata gare kër ñoo nekk Sénégal. te ñun dañ ne woon taxaw leen bu leen dem bu leen dem fenn bu leen liggéey urbain yi ñu ngi doon liggéey cependant dafa dem dik ñu ngi doon liggéey cependant mais ñun on était à l'arrêt te ñoo gën a bari donc waru ñoo gën a néewle ah buñ ko mënee xolaat daal moo gën parce que loolu aussi bu fekkente ne yow da ngaa jaboote ñëpp da nga leen di yemale kon lii nag kon parce que loolu tax woon ndaje mi ma rafetlu ko parce que am na occasion la pour ñu wax ci nga xamante ne mooy suñu naqar